asalaamaaleykum mbokki xaritu internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gëm ci seeni i teewaay di ñu seetaan tey dañu am mbégte ak kontaante bu mag a mag a mag a mag jàkkaarloog borom xam-xam bu mag di doomi daara yor daara bu mag euh, kooku tur mu ngi wuyu ci turu Serigne Abdourahmane silla Baabul Xayri ba pare nekk borom xam-xam bi nga xamante ne nii bu nëb bu làqu la. waaye tey dañu fexe ba toog ak moom fas yéene waxtaan ak moom ndax li ñu bëgg mooy ñëpp njëriñu ndax bu dee boroom xam boo xamante ni dafa ñëw rekk làqatu nëbbatu kenn du am njëriñ kenn du xam euh, euh, njëriñam waaye tey boo gisee ñu toog ak moom fas yéene waxtaan ak moom ngir génnee njëriñ loolu nga xamante ne ni mu ngi ci moom yàlla may na ko mu yëngut ci wàllu faj faj googu nag moom da ci bëgg di nëbbatu waaye tey am nañu mbégte ak kontante jàkkaarloo ak moom bi mu ñu accordé entretien bi ñu fas yéene waxtaan ak moom fii ci dakaar lay faral di nekk bu ñëwee dakaar dina nekk Thiès bu ñëwee dakaar dafay nekk fii ci Yoff waaye bu dee région de Thiès. dëkkam fa nga xam ne fa la soqeekoo fa la jàngee daara ba pare yor fa daareem bu mag muy Pekes Cumbel Silla Cumbaleen Silla sëriñ bi dama lay nuyu di sant di la gërëm di la jaajëf jaajëfal bu baax a baax di la wax dalal ak jàmm di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah aasubillahi min alsheytaan irajim ويني شهابك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Sénégal ñu ngi leen di bu baax ci di leen siyaar di leen ñaanal jàmm ak tawfeex di ci yéen bu baax a baax di ko ñaanal it waa bitim réew di ko ñaanal bépp doomu aadama boo xam ni yaa ngi ci biir réew mi ak biti réew di góorgóorlu fa nga nekk di am mbégte bu baax ñi ngeen ñëwee ci kër gi seet si sëñ Abdourahmane Sylla sëñ Abdourahmane rek moom taalibeb Seexul Xaddim la nekk fii ci Yoof di baagante ci la daramaan ak cumbuleen doon doomi daara mu ngook dégg ngeen ko présentation bi yaatu na la mu wax rek rëy na euh, di doomi daara rek jeexal na wax ci <coughs> waaye nag teewul duñ ci faral di ci jóg moom yor na daara ju mag joo xamante ne nii ca biir dëkkam euh, di yëngu ci nag ci wàllu faj sëriñ bi euh, su ma la laajtee tey bëgg naa ñu waxtaan tey ci wàllu faj googu nga xam ne tey ci alxuraan rek nga ko tënk te dangay faral di wax ne képp ku ma gis ajoom faju ku mën a gis rek ajoom du faju donc wax jooju nag ñun am nañ ci certitude am nañ ci yaakaar parce que it bëgguñu euh, suñu internet yi nga xamante ne nii dañu abonné ci ñun dañu seetaan kenn ci ñoom woo ko te ajoom du faju moo waral ñu ñëw waxtaan ak moom fas yéene waxtaan ak moom te ñun am nañ ci lu yaakaar te it ku ko xool ku ko déglu ci biir émission bi di nga xam ne li muy wax lu mu xam la lu mu maîtriser la moom Serigne Abdourahmane Sylla baabul Xayri Serigne bi euh, tey dañu bëgg a wax ne dañu bëgg dañu la bëgg a laaj ci. ci wàllum faj gi nga xam ne yaa ngi koy def parce que da nga faral di nëbbatu da nga faral di laqatu doo bëgg di génn ci presse bi te comme ni ko sëriñ yëpp di defee waaye tey am nañ ci yaakaar am nañ ci euh, mbégte tey ni ñu fexee ba ñëw seet si la nga accordel ñu ko ñu fas yéene waxtaan ci yow ngir àdduna bi yëpp jariñu sëriñ bi tey su ma la laajtee tey ci wàllu faj gi nga xam ne yaa ngi koy def nga xam ne lépp ci alxuraan nga ko tënk euh, tey euh, mën naa la laaj Sénégal sëy yi tey dañu bari di tas. wala jigéen ñu bari amuñu jëkkër góor ñi ñu bari lu ñu jàpp mu yàqu te loolu yëpp ñu ngi naan rab moo ko waral donc euh, est rab boobu mën naa ci am tuuti leeral. waaw dégg naan kàddu yu baax wala ñoo ñëw ci loolu leeral li faj ndax faj baa bari ca bokkul ñun sunu lépp alxuraanul karim la ma farat naa fi kitaabin min say in suñu borom. lépp la dëxañ ci biir alxuraan yàlla dogalit ñu dond ko jàngaat ko ba mokkal ko bari ci lool ay secret yoo xam ne mi ngi ci biir yoo xam ne dañ koy def secret yooyu it mooy tas di tas ba ci mboolem feebaru doomu aadama boo xam ne rek mu ngi ci moom amaana bu ñu suñ borom jubóolee dina saafara insha allah rabbi sëñ Abdourahmane it moom comme ni ma ko waxee woon rek taalibeeb Seexul Xaddim la lu yàlla lu yonent bi lu dul benn simple doomu aadama waaye nit laa koo xam ni lépp loo xam ni awma ci xam-xam du ma ci dugg yëkkamtiwuma tamit sama àdduna lu jotit yomb ci man insha allah rabbi ginnaaw loolu it wàllu rab boobu nga wax des na ci dugg lu bari bari di ci faj waaye dara génn ci tamit alxuraan yooyu ñuy sungu fiiru ñuy reen waaw beneen beet moom ñi nga xamante ni ñi ngi seen biir néegu sëy am ciy jafe-jafe des mën nees na leen ñaanal ba sunu boroom dogal li nu bëgg ñu am ko ci seen biir néegu sëy góor ñi nga xam ne amuñu lu leen neex ci seeni soxna mënees nañ leen a ñaanal ban am ci lu leen neex incha allah rabbi yi nga xamante ni na ko ci wàllu rab bi waaye sëriñ bi aussi tamit dama lay laaj mbaa sëriñ bi dana faral di yëngatu ci ñi nga xamante ne ni dañuy ut visa ci wàllu tukki muy dëgër loolu ngay ut liggéey muy dëgër loolu saa su nekk ba xam sëriñ bi Abdourahmane euh, Sylla Baabul Xayri dina ci yëngu. danay ñaan ci loolu bu baax a baax sax waaw ndax. Euh, yemul foofu rek ba ci wàllu mbiri tubaab yi lu ci bëree bëri lu mel ni comme nga nekk ci société ñu lay waaye dàq soit nga bëgg fa am baat soit ngay lijjanti dara mu metti dëgër nga bëgg lu la ci yombal ba mu deñ mhm. wala nga nekk ci ay jafe-jafe ay xat-xat bëgg mu deñ loolu dañ ci ñaan tukkeet mun amee sa passeport mënees nañ cee def loo xam ni bu yàlla jubóolee mënees naa nga ci am li nga bëgg incha allah rabbi ndax bari na ñu bëri ñoo xam ni yàlla dogal na ci suñu loxo yi lañ jaare dem kon nag képp koo xam ni ñëw na ci fii ci kër gi moo xam nga fekk ma yoof walla nga fekk ma tool ya euh, bu ko yàlla dogalee mën nga saa jaare dem incha allah rabbi mm-hmm. ci tukki googu léegi laay ñëw sëriñ bi ci tukki googu ba xam sëriñ bi dana joxe dele mm-hmm. awma délai nag yàlla rek am délai. Mm-hmm. awma benn délai waaye daal lu ñuy toppatoo di traite ba keroog muy sotti. waaw mënees na koo def tay tay mu xëy sotti mënees na koo def tay tay mu xëy bañ a sotti ndax yàlla rek mooy dogal waaye nag lu ci nekk daamu yoon mhm. te tamit wax dëgg nit ki lépp lu muy wax mhm. na ci xool suñu borom mhm. man damay faal di wax ni man yàlla bëgg ma moom ma gënal doomu aadama yi bëgg ma waaw eh, yàlla suñu borom nu ma mer rek moom la tey jii damay ñaanit képp kuy ñëw ci man fekk maag teraanga sooy demit bàyyee maag teraanga yàlla bu ma teraanga ju jënd loolu laay ñaan toujours ba tax du ma wax mukk loo xam ni xaw ma ko wala loo xam ne mënu ko tamit incha allah. sëriñ bi gis nañu jamono ji Sénégal problème mu wujj yi dafa bari lool ba nga xamante ne ni dañuy liggéeyante ah, ñuy takk seen i jëkkër xalaa yu demee noonu ba xam sëriñ bi aussi tamit yooyu dana ci yëngu ki nga xamante ne ni dafa nekk ci néegu bi sëyam ñu takk xalam ba nga xamante ne ni mënatul yëngu kooku bu yekkee sëriñ bi ba xam sëriñ bi dana ci yëngu. waa dana si defi ñaan ki takk xala moom. mënees mhm. nañ koo dindi. ci diir bu gàtt incha allahu rabbi ñaaree bi tamit mënees na neexal sëyam ba ki nga xam ne xelam dem na ci ba takk ko xala seen diggante rattax ba dootu ko defati lu mel noonu incha allahu rabbi ñu dindi ko ba noppi danañ ko mën a protéger ba bu ëllëgee ku ko mën a defit du jàpp ñëw ci wàllu protection boobu mm-hmm. euh, ba xam sëriñ bi am na ci yoo xamante ne ni parce que euh, ñun diis nañu dégg nañ fi ay béjjén yoo xamante ne ni sëriñ bi euh, mu ngi ko amee ci béjjén boobu bëgg naa it nga leeral ñu ci ba xam béjjén boobu béjjén bi lan mooy liggéeyam ak la ci lan lay yëngu ci lan lay dox. waaw béjjén yi nag moom bëri nay secret am na solo lool tamit te damay faral di wax ni fii jamono toll bépp doomu aadama rek ak ku mën di doon war na ko war na ci am waaw ndax réew mi ku ne xam na ni defante lu ñaaw li bari na fi ñaan bari na fi soxorit bari na fi. bëgguñu kenn am bëgguñu kenn dem waaw béjjén yooyu ñu ngi koy defaree xarum benn melo lañ koy defaree dagg benn béjjén bi sox ci li ñu sox buñ ko xasee sox béjjén bi bëri njariñ njëriñ kaaraangee ngi ci maanaam euh, rab du la mënal dara doo am garawul seytaane sa yaram it fu mu fekk maanaam nga xam ne day faral di diisak di faral di ngay tiit te kenn du la def dara wala nga jekk-jekk mer xam nga wala ngay def loo xam ne boo ko defee bu noppi di ko réccu yooyu yëpp bu yàlla dogalee nga am ci dana ko saafara incha allah rabbi bi tamit dafa doon wóbbee jën boo xam ne wërsëg day dox ci wërsëg day dox ci tamit day wut dara mu jafe soo ko takkee boo demee suñu borom mën naa def mu sotti incha allah rabbi day tamit gàllaaju kër waaw bu la bu nekkee ci biir kër gi kër gi xuloo du fi am werante du fi am te tamit maanaam kaaraange day law ba lawaale koñ bi nga dëkk sax incha allah incha allah mm-hmm. ok dégg ngeen ko noonu moom Serigne Abdourahmane Sylla Babul Khayri nee naa leen sànq ci njëlbeen bi képp koo xamante ne nii yàlla dogal nañu toog ak moom fii ci seen bii nga xamante ne nii mooy senclic point com waxtaan ak moom ci wàllu woo xam ci wàllu wu mën a nekk moo xam ci wàllu faj moo xam ci wàllu leneen euh, lu ñu leer la du lu ñuy làmb lu ñu xam la et puis tamit euh, lu ñu dem ba am ci leer parce que bëgguñu kenn ko nga xamante ni ñëw fii après ajoom du faju te yàlla may na ko dimbale na ko moom Serigne Abdourahmane képp koo xamante ne ni yegsi nga moom sa ajo dina faju ku aajoom narul faju rek boo yegsee ci moom aajo bi du faju mm-hmm. ah, sëriñ bi tey ñi nga xamante ne ni dañ la sori toom tey ñi lay seetaan nekk bitim réew amee fa ay jafe-jafe ñi nekk ci biir réew mu sori ci régions yi amee fa ay jafe-jafe ñooñu it mbaa jokkoo bi dana yomb ndax sëriñ bi amul jot mu ngi ci daara ja mu ngi bu ñëwee Dakar ah, yoof lay nekk 10 jours demaat ca daara ja jokkalante bi est-ce que dana yomb ci sëriñ bi waaw du jafe ndax euh, mbir moom bu fekkee lépp day dëgg rek dara du ci jafe mm-hmm. te man dama fonk doomu aadama ba képp ku ma woo man maa lay wuyul sama bopp duma jox sama benn dongo wala sama benn taari bi mu lay wuyu mm-hmm. waaw bu ma la wuyuwul rek xamal ni dama jàpp damaa jàpp kurusoo laa ma nekk ci dongo yi wala ma nekk ci jurga ndax dama fay sàmmaale tamit mm-hmm. waaw ma yor fa daara daanaka moo waral it moom du may faral di nekk Dakar lu bari ndax lii dëgg la nit ñi dañ ko def métier mm. waaye man defuma ko métier mm. dafa dem nag ba yegg si ci man mm. te mu doon ndonu xam nga li ma la wax sama maam yépp lii lan daa lan lan leen xamee muy ci la dara maan ak ci mbuleen si la kenn ku ci ne ci ñun bala nga am indépendance dangaa mokkal alxuraan bind ko jàng xam-xam ba xam li nga war a xam nekk ca la sa maam nekkoon nga téye ndono la di ko doxal kon amuñu benn yoo xam ne si ay caaxaan la wala loo xam ne si lu matadi la mm-hmm. wala loo xam ne si kuñ ca gis ne ñu xeeb mm-hmm. beneen bi ci des mooy képp koo xam ne yàlla dogal nañu jëflante mm-hmm. incha allahu rabbi di nga ci gis sa bopp loolu moom sikk sàkk woon ko ndax yàlla may nañu loo xam ni ku nört ku say aajo nört faju doon xamante man loolu maa koy ma koy faral di wax képp koo xam ne bu ma jëflanteeg yow say mbir du faju yàlla bu ñu jëflante barke Seexul Xadiim waaw ndax amuñu temps fii boo xoolee buñ fi ñëwee di jours lañ fi demaat foofu def fa du sori doog a ñëwaat ndax dañoo yor daara ay tuut tànk di leen jàngal alxuraan ca dëkk ba boole ko yori taalibe foofu mboolem loo xamante ni si yittey doomu aadama yi foofu dañ fay nekk kon moo tax du man di yàgg Ndakaar lu bare bare dégg ngeen ko loolu moom Serigne Abdourahmane silla Babul Xayri képp koo xamante ne ni ku ñëw ci man aajom faju ku aajom narto ñu faju bu ñëwee ci man du yegsi. Mhm. kooku mooy kàddu Serigne bi tey waaye Serigne bi nëbbatu bi lan moo ko waral. nëbbatu ma de damaa xam ne lu jot rek suñu borom dogal ko. te ñaareel wet mooy làqatu bi làqatuwuma sax xëy na damaa bëggul di fës ak yooyu. Mhm. ndax euh, ñu ci bëri. Mhm. dañuy ñax goow day lakk lakkaale bu tooy. ndax bu fekkee ni ñëpp dañoo maase ni léegi sëriñ si mm-hmm. dañuy naxee mm-hmm. dañuy def lañuy lekk alal xam nga tamit loolu mm-hmm. baaxut lekk alal jàmm nu mënoo li ngay def loolu moo waral man damay sax rusa nekk naan damay def lii ak damay def laa daanaka damay bëgg rek képp ku may jëflanteel rek fii ak rek maanaam euh, euh, euh, duma am la ma gënal man fii ak gisul boppam ca la muy def loolu laa bëgg a wax waaw ndax nun dëkk bi ku ne xam na ni ba ma fii doog a ñëw commerce moom fi indi woon mm-hmm. wala yàgg na mm-hmm. commerce moom fi indi woon mm-hmm. bi yàlla dogaleet comme tout tànk du wees bi may commerce yi yàlla dogal ñaari nit ñoo xam ne ku ci ne nitu marché la ci xawma leen kenn ku ci ne moom a xool boobu sax ay abasam sol laa daan sol yére yi ñu dagg fii kenn ku ci ne damay xool ba ma ñëw mun ma yow mii di doo nitu marché man ko lax lan rek bu ci ne damay teg njaay mi ni dem julli ji su ma julli ji su ma ñëwee jaayal ma dara su ma ñëwee ñu ne ma ku moom daal li daal ay daal laa daan jaay sax boobu ne ku moom daal yi man leen man ñu ne ma moomoo ko de leen maa ko moom kay ñu ne moomoo ko ma ne ko lu tax ñu ne ma yow mi doon nitu marché xaw ma loo mën a nekk waaye xalima ak daal moo gën a gaaw ci seen biir te ñooñu xaw ma leen xamuñu ma def nañ ma ko marché Padoa def ma ko marché Yoff bii ma nekk ci laa xam ne nag lii mbër mu ngi feeñ ndànk nag yëf yaa ngi feeñal boppam ndax mm, boo santee si la rek nekk ci koñ mm-hmm. ñu bëri du ñàkk ñu indi seeni doom nga leen di faralal wala nga leen di tuddali doom waa sowaat nga leen di takkali sëy mm. di leen maye yooyu yëpp dema dem ba tënk yitte yooyu tënk ma fii mm. dama demee ba sama sëñ bi soxla ma sama waajur mm. ci la ma xamal ni ma su fekkente ni maanaam euh, mën ngaa nekk ci la say maam nekkoon nga nekk ci ci lay doog a toog nekk ca ci ngay doog am ndigal mm-hmm. macha allah wax yi jub na et leer na te ñun képp koo xamante ne ni dal nañ la fi rek lu wër lay nekk parce que bëgguñu kenn woo ñu jël suñu numéro ci suuf nañu sëriñ ba nga ma woo boole de defal na ma nangam gisuma mhm. te ñun am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax mhm. waaye sëriñ bi ñi nga xamante ne ni dañu ëmb mhm. tey di doxantu te xam nga ëmb ci la ñuy rab yi di dugg bébé yi nekk ci biir di jaabante ak yooyu noonu protection bébé yi mbaa sëriñ bi aussi dana ci dana ci yëngu bu baax a baax a baax ndax yi nga xamante ne ni mu ca ndeyam ba muy nekk liir ca biiru ndeyam. waaw loolu de phénomène la boo xam ne moom neexut a tere ndax naqari naa tere bopp ndax fi ne jigéen goo ni bul solati bul ta bul defati boppam mu bëgg laa woon suufa suufa yi muy takk suwaat mu bëgg laa woon yu rafet yi muy takk jigéen goo ni bul saw yaram ci biteen mu bëgg laa woon ni yaramam mel xam nga loolu it maanaam dafa yombatut léegi ndax suñ fol da daan wax sala waliw yaa ngi nii ci kaw jaww ji waaye ku leen jur lan amatul xam nga la ma la wax loolu kon maanaam il faut que ñëwaat ci yiw gi waaw su fekkente ne ni yiw am na rek mhm. lu bari ci loolu day day day jàppandi mhm. ndax euh, ku ne xam na ni ëmb juróom-ñeenti weer metti na mhm. te ku ne jigéen ko sañoon bu sa doom dee wax ñëpp déglu ko te loolu li koy waral ñu ngi ci biir euh, ni nga koy ëmbee waaw suwaat bu fekkee ne yooyu yëpp jafe na la nga wut téere cat nga di ko takk téere muslaay nga di ko takk sangu waaye euh, doom doon na lu foor loo xam ne kenn waru koo ëmb ba noppi di def yoo xam ne si da koy lor bu juddoo euh, ñuy ñëw ci cat boobu ci loolu laa bëggoon gis parce que gis nañu senegal tey cat ni muy def dana yàqal nit liggéeyam cat lu ci bëri nit cat mu ngi leen di jàpp ñu jàpp ni ay liggéey la alors que cat moo leen jàpp seen yaram yi di diis ah, lu ñu dugg mu tas lu ñu yaakaar mu tas lépp lu ñu dugg loo xamante ni pour mu baax du baax am ay gàllankoor ak yooyu ba xam sëriñ bi it dana ci dana ci jëfandu ci wàllu cat boobu nga xam ne sonal na jaamu yàlla yu baax. waaw dañuy sangat ci wàllu cat. ci defi sangat ab deñ même sa yaram bu diisee. wala sa bopp tëju. dañ lay defal ay sangat yoo xam ne day deñ sa wërsëg tëju am nay yoo xam ne day tijjeeku mm-hmm. wàllu rab moom mas na ko portese mm-hmm. mook cat ba nga xam ne dara loo xam ne si lu yegsi ci yow la mm-hmm. du ñëw insha allah ndax jamono ji tool na fa xam kat daanaka ku nga ne fatuwu rek istati ko cat fa la tàmbalee macha allah dégg ngeen ko wax ji am na solo képp koo xamante ne nii cat dalaa jàpp loo yaakaar mu tas wala ngay jigéen képp koo xamante ne ñëw na ñaan si ñaari fan ñetti fan dootu ko gisati mu daw yooyu yëpp cat da koy def loolu yëpp boo contacté Serigne Abdourahmane Sylla euh, di nga ko jot te bu la jotee bu ngeen gisante incha allah ñun ñoo la ko wax sa jàngoro dana faju bu soobee yàlla waaye sëriñ bi ki nga xamante ne ni dafay mi problème mu police waa nekk kaso waa nekk ci jafe-jafe yu xat yooyu noonu nga xamante ne nii métti na mhm. dis na ba xam sëriñ bi dana ciy yëngu. waaw rawatina bu fekkee ne ëtteegun la soo ci raw nag dégâts lu mu rëy rëy su fekkee ëtteegun la buñ la joxee liñ lay jox foo taxawee génn. est-ce que loolu moom. ci gerte lañ koy def ca na dara. irsan irsan nii rek. semaine bi jàll amoon nañ ci lu nu mel. est-ce waaye dafa taxaw rek ñu bàyyi ko mu tamit. que waaye loolu wàllu woowu euh, sëriñ yi sëriñ bi est-ce que tamit euh, di ngay xawal di euh, jàppale kuy tooñ. léeg nit ñëw ci yow ba xam ne la sëriñ bi damaa bëgg nga defal ma sama diw nangam man de ka ma bokkal place dafa bëgg a jël sama place ba xam dama bëgg nga defal ma nangam est-ce que sëriñ bi dana ci yëngu. loolu moo doon dox ci loolu ba tey moom milliardaire la bu nga ñëwee kon ci palais laa leen dalal hmm. ndax euh, yàgg naa ci yëf waaye euh, lu du dëgg duma ci nekk man fekkoon ni maanaam du n'importe rek laay waxal kon wees naa fii bu yàgg yàgg waaye dama xam ni yàlla moom lépp lu mu digalub jaamam rek euh, defal ko ko balaa faatu na ci jot du dëgg ñaareel bi tamit maanaam man du ma far koy tooñ man bu ma wóoree ni bala ma laa ñaanal dinaa xam sa yitte su ma xamee sa yitte bu ma ko bu ma ko listixaare dinaa xam naay doxale ak yow su ma la jotee téléphone loolu sama diggante ak yow lay doon waaw daanaka loolu ñun ñaar lay concerné bu boobaa sëriñ bi macha allah loolu sell na sëriñ bi du tooñ du digle tooñ te duy ànd ak kuy tooñ. Euh, sëriñ Abdourahmane Sylla Baabul Xayri euh, ki nga xam ne nii dafay yuutu nguur maanaam di xëccoo nguur. di xëccoo moo xam examen lay def. Euh, moo xam bac lay dem moo xam BFEM ci lépp lu mu mën a doon waaye mu ngi yóotu ab ndam ci loolu nga xamante ne ni mu ngi ciy dugg te mu soxal ko loolu. Mm. ba xam sëriñ bi dana ci yëngu. waaw dañuy ñaan ci wàllu yi. ngay xëccoo dara bëgg cee jot moom mu ngi ci woon ci biir béjjën bi noonu sax mooy xëccoo dara bëgg cee jot ñaar boo ko takkee boo demee da da nga neex ñooñu ba ñu koy joxee boo muy tuut yow lañ koy jox te dinañ la ko joxe moo xam ne si yow sax nin la ko joxe da bett doo xam sax loolu ay secret yoo xam ne ci biir nit ki lay nekk ñaan nag daa lu nuru lu yomb ca jafe ñaan faaw nga xam rawaani nit ki faaw nga xam baatin baatin nag yombut lu li yomb mooy nga ne am naa bëtin ci amoo bëtin waaye waaw nga am bëtin dëgg nit ki nga mën koo gis jaxran doo ko mën a ñaana lu dëgg waaye euh, duñ jël lenn loo xamante ni si maanaam euh, ak bëgg la ci doomu aadama ba tax ñuy def lu mënu duñ ko def am na loolu dama ko fàtte dugalaale ci kii bi muy football football bi yàlla may nañ ci lu am am solo maanaam wàllu xëccoo daal agg naa ci soo xam ne sax football da ngay ma la ñaanalee ba noppi ngay doog a fay moom loolu moom bonus la boo xam ne maa koy def da ngay gagné ba noppi doog a fay. macha allah dégg ngeen joueurs yi kon joueurs yi nañ ko gaaw woo ko ci numéro téléphone yi nga xamante ne mu ngi affiché noonu moom Serigne Abdourahmane Sylla Babul Xayri di ki nga xamante ne nii képp moom moo koy faral di wax képp koo xamante ne nii sa ajo nar na faju soo ma gisee dana faju sa ajo bu nar ta faju lu ñu gisee. Mm-hmm. ba ngay ba ba ba nga may di say soxla. Mm-hmm. donc macha allah ñun yaakaar nañ ko ci wóolu nañ ko ci mooral ñu waxtaan ak moom te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax mbokk xarit yi euh, mu ngi nii di kii di doomi daara yor daarit di jàngal di borom xam-xam bu mag boo xamante ni bu nëbb la waaye tey fexe nañu feeñal ngir lan. aduna njëriñ ngir sénégalais njëriñ ngir képp koo xamante ne ni doomu réew mi nga ab fépp foo mën a nekk it mën nga ko woo bu ngeen contante di ngeen mën a jokkale loolu yomb na yàlla tey yomb na ko moom euh, Serigne Abdourahmane Sylla Babul Xayri waaye Serigne bi tey euh, dama dama la bëgg a laaj tey ñi nga xamante ne nii parce que it jàngoro yi bëri na problème mu bëri na Sénégal liggéeyanti defante yi bëri na ki nga xam ne nii tey euh, dafa feebar. bëgg a faju amul lu mun a fajo it te yegsi ci yow ba xam sëriñ bi dana koy defal te yàlla tax wala mu defal ko bu demee ba yor daal koy delloo. waaw loolu it mënees nañ ci dox waaye kenn ku nekk xam nga mbay mu ñoragut moom ñoo génne asaka maanaam loolu li ma bëgg a wax maam nit ki faaw mu yegg ba noppi doo ko xam leen la ñuy jëflante ak moom ñaare bi li ëpp ci fi ñuy jëflante mooy cumb leen ca kàddu gi xam ni wala sangate doomu aadama yi. ndax ku ne xam ne léegi réew mi dafa bëri sobe daanaka surtout ndakaaru gi man duma fi ñaari lu ci bari duma fi sangate fa lu bëri it fee laay liggéeyee daanaka damay ñëw fii ñu gisee waxtaan boobu ma jox la rendez-vous nga ñëw fee suwaat ma defaral la fee andil la waaye lu ci bari bari ndax damay bëgg képp ku ma jëflanteel sa xol sedd te dëkk bi neexatuta ñaan mu nangu lu yomb lu lu làqu laa lay wax dëkk bi neexatut a ñaan mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. dëkk bi dafa bari sobe neexul ñaan mu nangu ma waral moom Serigne Abdourahmane Sylla Babul Xayri bu lay ñaanal <coughs> da yóbbu ca dëkkam ca dëkki maamam ca cosaanam foofu daareem ji nekk mu daat la fay sangu ci ay jours yu néew sa ajo faju boo yegsee sa lépp dox bu kattanu ci kattanu yàlla ak ki barke moom nga xamante ne nii mm. faj gi wax na ko sànq da ko donn ci ay maamam te jàng ko di ko jàngale moom yor daara bu mag koo xamante ci dëkk ba sëriñ bi teyit day yëngutu ci wàllu képp koo xamante ne ci wàllu yar hmm. su ma nee yar ci yar ci diine ci lislaam képp koo xam ne yor nga sa sa xale bëgg mu jàng alxuraan bëgg ñu yaru bëgg mu am diine am lislaam boo jokkoo ak moom ci numéro yi ngi affiché ci suuf écran bi di nga ko mën a woo waxtaan ak moom nga jox ko sa daa doom ji mu téel la yaral la ko jàngal jàngal ko alxuraan euh, ba nga xamante ne nii boo ko gisee moom mii nga xool sax nga xam ne ku am yar la te képp koo xamante ne nii euh, euh, jur nga sa doom bëgg nga mu yaru bëgg nga mu xam diine lislaam bëgg nga mu jàng alxuraan sëriñ bi dana ci yëngu lool lool lool waaye sëriñ bi euh, li ma ci ma la ci bëgg laaj tuuti tuuti tuuti mooy ñi nga xamante ne nii ay ndaw lañu bëggante ba lool toll ci war a sëy ñaan ñu ne la duñ la ko may ba xam sëriñ bi dana yëngu ci lool waaw bu nu xoolee seeni mbir wér ni mën nañoo ànd. mënees nañ cee defi ñaan waaye tamit toujours nit bëgg lu mu wërta bëgg looy da indi gàllankoor ndax bu fekkente ne nii dangaa bëgg mu jigéen day ñett ki nga war a takk ak ki nga xam ne yi da koo bokk ki nit ak ki nga xam ne ba addunay tukki doo ko takk bu fekkee dangaa daje koo xam ne ba addunay tukki doo ko takk moom munoo def munoo booroon jël di nga yor lépp di ci ñaanu du am mukk ci àdduna ki nga xamante ni si da koo bokk ak nit loo yàgg-yàgg moom di nga ko bàyyi keneen takk ki nga xam ne yow kese yaa ko moom nit ki munta ñaanloo ñaanloo ñaanloo bu nekk ca ku dul yow kese loolu la ñett ñi ñoo am ci jigéen bu fekkee ni daal koo war a takk la buñ ko xamee dama la see ñaanal ba ma takk ko incha allah waaw moo toll foo xam ne lépp looy wax rek na nga ci sédd sa borom bu ci sédd li ci poos nit ñi ndax sa borom a ko ci def te nam def ba def ko ci mën na ko def ci say poos ci tubaarkàllaat yàlla bayiwuñu ñuy sagal kon dara jërluñu wax loo xam ne du dëgg. ki nekk bitim réew euh, seetaan émission bi waxtaan ak yow bëgg a jokk ak yow am am am am am jàngoro joo xam ne nii soxla na ko nga dis ko est-ce que tamit jokkalante bi dana yomb ci ñaar maanaam nga war a bind fii euh, nga war a defar ab garab. Mhm. war ko envoyé bitim réew ak yooyu. Mhm. sa diggante bitim euh, ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew est-ce que jokkalante bi yomb. waaw lu ëpp ci ñaan gi sax dafa fekk ni nit ki moom faaw nga jox ko mu jëfandikoo waaye li ci. li ci ëpp solo mooy kurus kurus nga man ko boo xasee am rawxaani turu nit ki turu ndeyam turu baayam boo xamee rawxaanam daanaka bu ñaan di doon cent quatre vingt yëpp fii lay nangoo xam nga li waaye loolu man ko daa yombul ñaare bi bu demoon ba defar ko danañ ko mën a xool nu ci jote sowaat ñu jox ko ñoo ñuy dem ak ñëw CP bu fekkee am na ko bu fekkee amu ko ñu def ko ci poste ndax dañuy faral di def yooyu Euh, macha allah alhamdulillah sëriñ bi kàddu yi rafet na lool mbokk yi di leen fàttale ni suñu invité tey mooy euh, sëriñ Abdourahmane Sylla Baabul Xayri euh, mu ngi fii bu ñëwee Dakar fii ci yoof lay nekk bu fekkee dafa nekk ci région de Thiès dëkkam fa nga xam ne fa la sanc si daaram ju mag yor ko fa te it donnoo ko fa mm. mooy Pekes Cumbaleen Sylla Pekes Cumbaleen si la bu nekkee euh, dëkkam waaye bu nekkee fii nga xamante ne mooy ndakaar fii ci yof lay nekk Tongoor boo ñëwee ba Yoff Tongoor jël numéro yi soo ko woowee di nga ko jot di ngeen mën a jokkalante ak moom euh, ngeen mën a doxalante te comme ni nga koy faral di wax rek képp koo xamante ni sa aajo narul faju doo yegg si waaye képp koo xamante ni sa ajo nar na faju man boo jàkkaarloo ak man sa aajo dana faju te ñun am nañ loolu ci moom yaakaar moo waral ñu jël ko tey sëriñ bi tey lan nga loo xamante nii tey di nga ko mën a maye ci ñi ko yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ci xam-xam bu ndaw bu nga xamante ne ni mën nga ñu ko may euh, ñoom ñu jëriñoo ko. waaw am na loo ma laajut te mënees na ci dara muy ngóora. ngóora mënees nañ ci am nañ ci am solo. ngóora nag bëri na ay façon bëri na ñoo xam ni tey dañu ànd ak seen soxna di gaaw a yegg. yooyu mënees na laa defal comportement yoo xam ni mën naa yàgg lool dañu kontaan waaw. ñaareel bi tamit euh, même jigéen ma am nañ ci yoo xam ni ci kanamam la koy def bu ko defee day yëg boppam bu baax a baax a baax ndax rab dinay def loo xam ni booy sëy ak sa borom kër doo yëg bànneex suwaat sa borom kër du yëg bànneex ci yow yooyu daa doon secret yoo xam ne xam nga li ma waxoon ci commencement bi rek arxuraan lépp ngi ci ci biir la nekk faaw nga xam ko tamit yooyu it ni ngi ciy dox bu baax a baax li may dénk nit ñi maanaam 313. Euh, mhm. saa boo jullee waxtu wu juróom. Mhm. nga di ko wérd mhm. dina ubbi say buntu wërsëg. dina lay musal ci cat dina lay musal ci làmmiñ. loolu it maa ngi koy baaxee nit ñi 313. la loo am solo la waxtu juróom woo julli rek. waxtu juróom yi waxtu woo ci julli rek nga def ko doog a jóg ñaan sa borom. léegi say bëgg-bëgg suñu borom def ko incha allah. Mm-hmm. macha allah loolu bonus la Serigne Abdourahmane Sylla moom moo ko joxe 313 basmala waxtu boo jullee rek mën ngaa toog balaa ngaa jóg nga def 313 basmala dina muccal ci yu bëri waaye Serigne bi ci nga xamante ne nii ci wàllu fajum wolof est-ce que Serigne bi dana ci yëngu parce que léeg nit am ay ndoxum siti yu demee noonu ba nga xamante ne da koy tere sëyam euh, sëy da koy tere sëy ci yooyu ba xam Serigne bi dina ciy fajag yu demee noonu. waaw maa ngi koy wax léegi. ndoxusit yi das koy faj das koy traité ba mu tane xëy na nag bëri na ñu ci dugg di wax dama koy def dama koy def ci ku dugg du gis résultat waaye wax dëgg yàlla ñun de moom bu ko composé suñuy garab même pas 15 jours di nga gis ni muy yëge ni yéen mu ngi wàcc ci yow incha allah rabbi yeneen yi nag ay humidité ay yooyu bëgguma ci xóot ndax bëriwuñ ci ab xam-xam manees nañ ci ñaan nag mais li ñu faj moom dëgg-dëgg mooy ndoxu siti moom am na secret bi fi mu nekk nii moom macha allah dégg ngeen ko noonu moom Serigne Abdourahmane Sylla képp koo xamante ne ni Sadio nar na faju boo ma gisee Sadio faju Sadio bu natt faju boo ma gisul Sadio du faju numéro yaa ngi noonu muy 477 417 09 99 76 298 73 75 mooy numéro yi nga xam ne affiché na foofu bu nekkee Dakar fii ci yoof lay nekk Tongoor soo ñëwee ba Yoff Tongoor soo ko woowee téléphone mu jot la te it bu nekkul Dakar mu ngi ca dëkk ba nga xamante ne nii Pekkees lañ koy waxee foofu nga xam ne ci région de Thiès nga xam ne fa la sanc daaram daara ji nekk. Ah, waaye sëriñ bi dañuy faral di dégg kàdd gi te xamuñu luy kàdd gi donc lan mooy waral dëgg dëgg lan mooy kàdd gi. waaw ah, gi moom. ay mbóot ay mbóot yu mbóot yu bëree bëri la yoo xam ne ci biir la nekk waaw foofu moom ku yàlla dogal nga jëfandikoo lafa ne mboolem loo xamante ni si sa jafe-jafe na day daal di arrêté daanaka du nimport kii lañ fay àndal ndax yafa nekk da du yëfi gone ndax euh, kun fa xas dugg daal bay boobu li la neex ci àdduna mën nga def mais nag lay lépp doon lu baax képp koo xam ne def na lu bon margine si mën nga ko jàppal bés waaw waaye nag yow bul def kenn lu bon ndax euh, dañu jël sa jëmm dugal fa ma ne ku la yóbbu fu ñu la mën a yóbbu ci àddina ci sëriñ ak fépp duñ gis sa tur waaye nag liñ lay digal mooy bul tooñ waaye ku la tooñ rek bu soobee yàlla mën ngaa mën nga dina ko réccu euh, kaddu gi dégg ngeen ko loolu macha allah foofu am na solo foofu man mii de bëgg naa fa dem sëriñ sëriñ sëriñ Serigne Abdourahmane Sylla mm. euh, waaye kaddu gi ab bërëb ab bërëb la wala ab place la boo xam ne nii fala la Serigne Abdourahmane Sylla Babul Xayri di defee ay ñaanam te képp koo xamante ne nii bëgg na la sangu fa lay yóbbu sang la te dégg ngeen wax yi mu nii kàddu ba moom ab bërëb la wala ab place la. soreewut dëkk bi dëkk bi tamit lu ëpp ci samay ñaan léegi fi laa koy defee waaye bu ma xoolee ba war laa sangat fa laa lay sange ba may sangate ci kàddu ga kàddu ga maanaam da lay formante ci gàttal. fekkee dangaa ngaa bëri ay lëj lëj ak yooyu kii tooxi doona yooyu dugg xeet yooyu nga bëgg caa génn da moom dalay formanté incha allah formante xam nga ko moom xam naa waaw mooy supprimer nit ki ba mu jeex takk vidé ba mu jeex tàkk doo ko def ci moom nag li ngay def macha allah macha allah dégg ngeen loolu kàddu gi loolu mooy formatage képp koo xamante ne nii amee nga ay jafe-jafe ay feebar sa yaram lu mu mën a dem moo xam ne ay sëf la ay liggéey la wala ay rab jàpp sëñ bi Abdourahmane Sylla Babul Xayri su la yóbbee ca kàddu ba sango la mm-hmm. loolu yëpp day daal di formaté wu na lu wala nga toog lu yàgg mënoo am borom kër boo ci duggee rek suñu borom dogal la gën ci yow mm-hmm. moom nga yor doon bu góor mënoo mm-hmm. am soxna da koy faj incha allah waaye sëriñ bi ñuy wax ci wàllu daara ji nga xam ne yaa ngi ko yor foofu ci dëkk ba euh, daara ja naka lay demee tey képp ko kilo la bëggoon soxla woo ci wàllu ndawam bi nga xam ne nii bëgg na ko yar bëgg na def ci moom diine lislaam ak alxuraan hmm. tey su la woowoon naka la loolu di demee waaw am nga moom ndeysaan fii ak ñaar fukki at ci kanam xam nga ni yar fi gone ci réew mi dina jafe ndax technologie bi am doy na war lool damay faral di wax ne ku yëruwut indaale woon ndakaaru gii sax moo ci raw ku yëruwut indaale woon rek mar si mas nga sànku ndax léegi dëgg lañ jël def ko fen jël fen def ko dëgg loolu nag faaw nga doon yor éducation bu bu bu xóot doo ko xam li ma la wax nii waaw euh, liñ ci jubloon mooy liggéeyal ci suñ borom ci ndaw ñi ndax euh, li sëñ Saali waxoon ne bu ngeen ma joxee ndaw ñi ma def ci ñoom li sëñ Tuubaa defoon ci mag sax yellawuñ ko loolu it lay waral di waxaat ba tey waaw daal dama am yéene ndaw di jariñ réewam loolu laay xar sama tànk tubéy ba tax na képp koo xamante ne si woo na ma am kum fi war a yóbbu rek incha allah rabbi danañ ci déggoo incha allah daan la ko sàmmal yaral la ko noppi maanaam du manqué dara incha allah rabbi te tamit euh, dina ci am lam bëgg ndax euh, fi ne nii kat bénéfice yëpp am solo waaye bénéfice bi ëpp solo ci àdduna mooy nga bàyyi fi doom ju baax mm-hmm. doom ju baax mm-hmm. soo ko fi bàyyiwul bàyyiwoo fi dara boo fi bàyyiwoon ay milliards mm-hmm. ay bien lu mu mën a doon mm-hmm. te bàyyi woo doom ju baax mm-hmm. ndax yaa yaa na nga xam ne yaa seroo yéen a yem mm-hmm. doom nag li nga ko mën a dimbalee bu màggee du la xalab mooy nga yar ko yarub lislaam yarub diine yarub sutura ba bu mu am sutura ok allah lépp loo waaye mën a am ba bakko ko fi bu doon ay milliards te amoo doom ju baax doom jaru amoo sero kooku kàddu yi nga xamante ni jóg na ci Serigne Abdourahmane Sylla Babul Xayri moom nag di fajkat bu mag comme li ma leen ko waxee sànq njëkk bi te di doomi daara jàng ko donn ko ci ay maamam euh, moom li ñu amoon tey fas yéene waxtaan ak moom ngir lan génne njëriñ li nga xamante ne nii mu ngi nëbbu comme faral li ñu koy faral di wax saa su nekk ñun képp koo xamante ne nii euh, rab rabee jëwuñu soxlawuñu ki nga xamante ni dafay naxe li ñuy soxla mooy lu leer nañ li wóor ki nga xam ne nii tey yéen ñi seetaan su ngeen ko woowee wala ñu wooñu di ngeen am ay résultats yu leer mm. te it moom comme li muy faral di wax képp koo xamante ne ajoom nar na faju boo yegsee sa ajo dana faju képp koo xamante ne ajoom narul faju boo boo doo yegsi ba say ajo du faju mm. te ñun wóolu nañ ko ci yaakaar nañ ko ci parce que boo gisee nëbbatu gi tout le temps mu ngi ci toolee di nëbbatu parce que bañ li fi nekk ñi nga xamante ne wax na ko sànq ci biir waxam ku nekk di woote ne maa mën maa waaye moom la dimbali na ko lu mu jàng la donn ci ay maamam fekk ko fi tey di ko doxal comme ni mu waree kon sëriñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal di la ñaanal jàmm di sàkku ci nga ñaanal ñu bu baax a baax a baax a baax ñu ngi leen remercier mbokk yi numéro am yaa ngi noonu muy 77 417 09 99 76 298 75 13 75 loolu mooy ay contact am bu ngeen ko woowee di ngeen ko jot moom Serigne Abdourahmane Sylla Babul Khayri borom képp koo xamante ne nii aajoom nar na faju boo yegsee sa aajo dana faju ku aajoom nar faju doo yegg sa aajoom faju kàddu yu mujj ak lan ngay dékk sénégalais yi lan ngay dénk ñi lay seetaan ak lan ngay ñaax ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan sëriñ bi. ok sama kàddu yu mujj mooy di leen nuyu yéen site bi yëpp di nuyu sëñ Moustapha waaye moom it la li ma gis ci moom it laa gis ci yéen di leen ñaanal yàlla na yàlla barkeel liggéey bi. loolu li ngeen ci bëgg lépp suñu boroom def ko barke Seexul Xadiim di wax sama kàddu gu mujj rek yàlla na yàlla sotti xéewal ci réew mi sotti barke ci réew mi indi fi jàmm ak tawféex ak kaaraange di ñaan it bépp bon volontaire boo xam ni bëgg nga jàppale daara tamit tàllal na la suñuy loxo ndax ku ne xam na ni daara ja bëri na ay ay ay ay xeeti ndimbal yi ñuy soxlawoo lu mel ki dund lu mel ni ki ay yére yu xale yi sol